dàq si njaay ak Amady Badiane ñoo ba mu ñëw ñu teg ko ci loxoom nouveau modèle buy doog a génn bees tàq mais wàllu balaa ko sekk bi est-ce nit la mais wàllu yu est-ce doo wàllu yu maa koy fen léegi-léegi bala cee média jot tare yi di ci jot adduna ah, ah, bi di ci wax man maa ci njëkk a wax man aadama sa tatatatat mais du nit wàllu du nit wàllu du nit eh, oto nag mais ci yoon bi la jëm koy may oto bu rafet rafet rafet rafet rafet waale xol bi dafa rafet toog leen di seetaan rek